salaamaaleykum Omar Omar Sow ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay. Omar temps bi xoj nañu mën nañ ni mënuñoo wax lu bari parce que gars yi si suuf ñëpp a ngi lay xaar Omar tey ban yëg-yëg nga am. waaw contentement d'abord di sant di gërëm waa yëppal daal ginnaaw bu ñu santee suñu waajur sant suñu waajur ju baax a baax sant aussi tamit dëkkandoo yi ak waa yëmbal yëpp euh, ñu ngi sant le président de la république parce que tey euh, bu demee ba am kàttan bi suñu borom la. Euh, suñu le président vraiment parce que c'est la première fois dans l'histoire politique de yëmbal ou bien de Pikine de département de Kër Massar nouveau département politicien bu nekk parti au pouvoir di def événement comme comme des petits pains fami ñoo jëndul seen bop ay tissu man mako indi fami jënd ko loolu dafa am dafa am lu muy def ci nit dañ aada won gis politicien di maye tissu di maye ñaw mais ñun tay dañoo jaay tissu le mouvement osis Omar so yëmbal sit di gëreum wa mouvement bi yëpp travail exceptionnel bi ñu def parce que amana liggéey bu amul won à la base tay li du am té li tay dañoo bëgg tay delloo jukal fami parce que ay formation lañu lañu def à travers suñu partenaire muy CRAT def aussi ay financement yoo xam ne defal nañ ko individuellement mais tey dañuy indiwaat lu bees mooy ak FONGIP indiwaat gën a financé ñu ndaw ñi parce que tey dañoo jàpp ne tey euh, góor ñi c'est am nañu njëriñ c'est vrai mais tey góor ñi bëri dañoo abandonné kër yi jigéen ñi ñoo yor kër yi jigéen ñoo nekk ci marché bi jigéen ñoo nekk ci mbedd jigéen ñi ñooy ñooy taaba taaba jigéen ñi ñooy dëbu dëbu moo tax nag ñu ne mois de mars mois wu jigéen la jigéen ñi ñoo nekk loolu ñun aussi suñu liggéey yëpp la su jigéen ñi surtout la ñu gën a jàppale la ñu gën a jàppale parce que jàppale jigéen rek jàppale nga kër moo tax ñu leen di jàppale tey di leen financer jàngal leen aussi tamit nu ñuy nappee jën muy jox leen ay formation ay cere ay céréales locale ay ay ay araw ay jus ay lépp pour que rek ëllëg ñoom tamit ñu mën a dem former ñeneen ba pare ñu yëkkatiwaat dara tegaat ko seen loxo pour que ñoom tamit aussi ñu mën a dem jaay donc tey c'est une journée exceptionnelle journée politique la c'est vrai parce que politique de développement la def journée euh, politique la parce que rendre hommage tey jigéen. mooy politique de la femme tey gis nañ ko nu ko président defee mais journée boo xamante ne tey tamit eh, dañ koy delloowaat lépp lépp waa yëmbal delloo ko lépp waa Kër Masar mais en tout cas sentiment de fati satisfaction mobilisation bi ñu ngi gis. man si kaw mobilisation nga effectivement parce que gis nañ ni ñu démb Sénégal yëngu teewul tey Omar Sow woote. jeunesse yëmbal sud bi muy Pikine Kër Masar ñëpp génn jeunesse boobu lan la doon Omar defal ba mu jaral ñu war a mën a génn pour de de. dudul ni ma jàppee sama boobu dama leen ko jàppee. Ah. parce que politique taxul nga bew politique taxul nga def nak sudul non, politique aussi tamit da nga wara a nit ñi parce que nit ñi kenn juru leen kenn jëndu leen nit ñi tay bo leen joxe cër rek cër gogul lañ lay delloo donc tay cër gi lama wa waa yëmbal delloo muy ndaw ñi ñu cër bi lama wa Kër Massar département banlieue cër bi lañ ma donc amuñu secret hein ah, luñu am bokk nañ ko ñun ñi te dañuy faral di wax benn cadeau lepp luñu nar am ci kaw suuf te naruñ ko bokk ak suñu mbokk ak suñu dekkulo yalla bu ko yalla may ta soxla wuñ ko donc di leen sant yéen aussi euh, liggéey bu bees ba ngeen def di leen encouragé di leen ñaanal yàlla aussi tamit yàlla gën a leen def réew mi réew mi am dal réew mi am aussi tamit yàlla suñ fi ndox bu sedd parce que nee naa leen Sénégal vote avant les élections te président Macky Sall élection moo ko fi teg te élection rek incha allah moo ko fi dindi te yaakaar naa réew mi liggéey yu mu fi def tey réew mi doyalagul ci moom jërë ngeen jëf. gars yi di leen jaajëfal ah léegi su ko defee dañuy ànd ak Omar wàcc suuf comme ça xool ñi fa nekk ñu xool affaire nan lay déroulé bu soobee yàlla Avancez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur. Avancez leen. Avancez leen. Avancez leen. invité naa ci yow nee naa nag madame la ministre Assome Diatta dugg si na ànd ak président au conseil lan ngeen ci yow Assome Diatta yaa man ci jàkka yi man ci juma yi man ci jumaa yi man ci réew Assome Diatta yaa naa da ngay xaw a dëgëral tuuti Assome Diatta yaa naa Oumar Sow may wax rek ne que monsieur Oumar Sow sa xarit sa frère. pour lenn loo xamante ne ruñ nañ ko suñu ànd ak président de la république dama bëgg ñu déglu géwél yi déglu leen ñu comité de la déglu leen ñu. barkaale yow rek la ñuy déglu Sow. li may wax dama bëgg la presse ngeen jël li may wax ah. Ah, dëkk bi ku ko nar taal yow yaay tàkk parce que lan moo fi taal Sénégal ñi ngi am courant ñi ngi am pétrole ñi ngi am gaz ñi ngi dem élection di voter ku nekk yaa ngi jox li sa soxla ku nekk yaa ngi wax li la neex mais nag wax li la neex saaga nit ñi di saaga day nit ñi wala di menacer nit ñi parce que force doit rester à la loi. parce que nag ay xale yoo xamante ne lu dul saaga lu dul toj lu dul taal amul lenn loo xamante ne ñu koy proposé Sénégal ba boole ci nag di xas kilifa diine yi moo taxit ma ne ko Sonko yaa ngi tëdd clinique wante xam nga ne balaa sëñ Mountakha génn xalwa a tëdd fu raw clinique parce que bu ñu teg bi mooy guérilla urbaine bi taal fii Pono taal fii Auchan taal fii yooyu yëpp pense que tey war nañ ko mën a jël tey dissoudre Pastef bi leneen li mooy Ousmane Sonko mu ngi ci lal hôpital bi ñu koy ñaanal yàlla mu mu mais comme moo woote woon gas-gas ba mu ñu mat sa masa je pense que tey bu dee woon tamit yaayam dina juraat peut-être bu amul chance yaayam juraat. mooy yaam dafa ménopause xam naa ne amul chance parce que moko waxone comme mo ne ku dee sa yaay juraat moom xam naa ne yaam du juraat parce que yaayam ménopause na mais nak en tout cas en tout cas nak euh, di di remercier wa bi bu baax di remercier waa jeune di ne nit da ngay am yar am teggin bo amul yar am teggin ñu tegal la ci yoon parce que gis nañ ko tay xamoon na lii di ko parce que mënoo dem Touba dëkk bu melni Touba dëkk bu sel nga ñew yakati ko musutu am xamone na ne sëñ Touba du ko bàyyi nii gisagul dara